ko xeex di ko fexeel sëtam ñëw toog fi mu toogoon ne du ma julli ji juma ndax feebar buñ ne ko fa dem est-ce que mënu laa wàll xalaatuma ko sama maam du julli ci géej gi mukk mu ti du ma julli ci jéeri ji mu julli ci jéeri ji julliloo ñëpp màggal ñëw mu màggal poroxaan ñu ngi koy waaj sëñ Muntaxa mooy lom mooy l'homme de l'année ah oui sëñ Muntaxa Mbàkke mooy l'homme de l'année il faut partager ça oui. macha allah am na solo am na solo ñuy bég ci moom.